moɗen mbiro mbenidaare yépp ñu ngi leen di nuyu te di leen chiara di leen dokkeel leen dal xeq te di leen ko baalu leen ñaanal di ko sàkku ci yéen ñaan borom subhanaa wataala mu boole ñu baalu waaye itam boole ñu nangu suñuy ñaan allahuma amin di jiital ci nuyo boobu jëwri nu baara yi di sëriñ tubaalo moo jottali ñu ko mbooleem fu ci ak membre nekk rek ci booleen juróom benn baara yooyu rawati na nag ñi nga xam ne ñooy topp seen jotaayu yóbbalu ndaw ñi te mooy seen bindub tasawuru siraar di leen jéggule itam eh, yéen nga xam ne yéen a koy topp xëy na ñaari jotaay yi mujj am amut yi ñu mujj a weesu bokk waroon am amut ah, la ko waral itam suñu coobare waaye ittey jamono rek léeg lekk xëy na moo ñuy gaar ba xëy na eh, fa ñu nekk duñ ko mën a jàllale bu ko defee tey war a nekk suñ fukkeel ak ñett jotaay wala suñ ak ñett bind ñu toll itam ci bunt bi nga xam ne day jàngale faratay julli faslun li ab teqale la wala li ab dog la fii furuudi salaati ci faratay julli kon lu mu bii li ngay jàngale mooy faratay julli furuuduha ay farataam moom julli xaddu diis na ko lim xam satan ver mu di fukk ak juróom alal la si ci la nga xam ne fakkara tudd na ko talaaw fi imaamoo fi sul fiqan kay borom fiqa faratay julli nag diis na ko lim muy fukki fukki farata ak juróom te la nga xam ne imaamoo fii moomee nga xam ne ku dégg fiq la tudd na ko fukk ak juróom yooyu nga xam ne moom imaamoo fii moom nga xam ne ku dégg fiq la nag moom la tudd fukk ak juróom yooyu moom la sëriñ Tuuba radiyallahu anhu indi ci téere bi am nañu wax leneen waaye yow mi toll fii jàppalagun lool rek ba àgg ca yeneen téere incha allah awuluha ba ca njëkk ni yetu naa si suñu yéene kon ba jiitu ca farate julli mooy yéene yéene bi eh, ngay yéene booy tàmm di julli gi mooy farate bi njëkk eh, bu ci amul du baax woon yi ñaareel ba takk biratul ixraami moo di kàbbaluk armal xusu jàppal bayaan li sama biral farata yi julli mooy kàbbaru armal kàbbaru armal mooy allah akbar gu njëkk gi lay dugal ci julli gi mooy ñaareelu farata yi moom itam eh, mooy ñaareelu yi julli waalisuha ñetteel ba riyaamu moo di taxawaay ba lahu ñeel kàbbaru armal googee kon ñetteelu farata bi mooy kàb eh, kàbbaru armal bi taxaw gi ngay taxaw di ko def manam taxaw bi ngay taxaw ngir kàbbar kàbbaru armal googu mooy ñetteelu farata bi maanaam bi nga xam dafa mën a taxaw kàbbar kàbbaru armal bi mu toog kàbbar kàbbaru armal googu bu baax raabi waxe ñeenteel ba xiraatul ummi mooy jàng faatam ñeenteelu farata bi mooy jàng faatam dina ñeel ka xam ne yu saam gis na war la ñeel ko waaye misaa juróom juróomeelu farata bi hay juróomeel ba sama juróomeel xaraa ba xiyaam naa mooy suñu taxaway li ajli al khiraati ngir gogale jang kama fi naqli ndax mu nekk ca toxal ga juróomeelu faratay julli moy taxaw gi ngay taxaw di jàng faatiha mooy juróomeelu farata bi ki nga xam dafa mën taxaw jang fatima mu tok jang ko du baax saadi su xayaa bennel ba ar moy mooy juróom-benneelu faratay julli mooy rukkoo summa saabion topp juróom-ñaareel ba roxo moo di yëkkatiku minhu ca rukkoo boobee juróom-ñaareel ba mooy bu rukkoo nga siggi ca rukkoo ba ndax rukkoo bi moom lu mu yàgg-yàgg rek te siggeekoo ba tey am na sujjoot am na ba tey am na rek farata boo xam ne def goo ko kon mooy juróom-ñaareelu farata bi mooy eh, siggi ca rukkoo ba mu ne kaana nekk na an naafiu aji jëriñu ji lee ñeel ma loolu sëriñ Tuuba radiyallahu anhu moo ko daaneele woy wi ci lenn ci ay njariñam wala boog lenn ci ay mayam lenn ci ay mayam yoo xam ne borom subhaanahu wa taala euh, defal na ko ko mu di ko wax ci téere bi wazaaminu juróom-ñetteel ba ak sujjoot mooy sujjoot juróom-ñetteel farate mooy sujjoot bu ma taase ma topp juróom-ñeenteel ba rafa moo di yëkkati bu ñu ma ca sujjoot ba eh, mooy eh, siggi ca sujjoot ba ba tey sujjoot bi lu mu yàgg-yàgg rek te siggiwoo ba tey bàyyi nga farata boo xam ne defagoo ko faaw rek da sujjoot ba muy juróom-ñeenteelu farata la moo xam ne xadd xadaani gin na ma wala jubal na ma as-saari'u aji ràmm ji te mooy yonante bi sallallahu alayhi wa tey loolu sëriñ Tuuba radiyallahu anhu moo ko daaneele wayi rek xaasiruha fukkeel ba in kunta nem nekk nga soqati daa idi boroom ak roy niyatuhu eh, moo di ak yeneen sama foofe la datti ca tàmbali ba fukkeel ba nag mooy su fekkente ne danga am imaam di roy ci moom nga yéene roy ci imaam loolu mooy fukkeelu faratay julli wajaxala def na ak tartibu toftale adiya sar fukkeel ba ak benn fukkeelu farata ak benn ya nag mooy nga toftale farata yi ñun toftaloo maanaam boo kàbbare kàbbarok armal jàng fatiha sëgg siggi si siggi noonu nga xam ne daal noonu la toftaloo loolu farata la mooy fukkeel ak benn farata yi julli suma tumaani top suma tumaani na top dalga sani udra fukel ba ñaar kon fukkeel ak ñaaru faratay julli moy dal dalga wajana te nga def salisa fukel ba ñett lihtal ak yamo fukkeel ak ñett faratay julli moy yamo yamo ak dal xaw nañu nuro waye nak ku ko setantal bokkuñu wute nañ euh, ak dal maanaam mooy ci gàttal rek comme boo boo boo boo boo sëggee dana fa tekk ab diir doog a siggi maanaam daal bañ a parax paraxee bañ parax paraxee julli gi maanaam ànd akub ci julli gi daal ci waxin wolof bi gën a gën daal xëy na mooy bañ parax paraxee julli gi rek am ñoo xam ne bu ñuy julli daanaka dañu mel ne ginaar koy jox rek loolu moom dëgg soree na lool ak li wax euh, ak euh, li wax tumaani na loolu mooy fukkeel ba ak ñaar euh, ak yamoo yamoo mooy yamoo mooy masalan boo ne sama ala liman amida boo siggee ci sama ala liman amida googu nga fa ak tek ba cër bu nekk fa mu waroon a wu mu placé wu fa bu may ak yamoo maanaam euh, lépp looy def ci julli gi rek cër bu nekk maanaam bala ngaa def leneen cër bu nekk fa mu waroon nekk mu nekk fa loolu mooy euh, ak yamoo ci misaal mu suufe mi nga xam ne suñu ñàkk mën a misaal la loolu mooy fukkeel ba ak ñett jaxala te nga def rabia fukkeel ba ak ñeent asalaamu salmal ba hmm. fukkeel ak ñeentu faratay julli mooy salmal o kamala te nga matal bi jalsati salam ca jotaay salmal ba min hamsati al ca hamsak al ga li miimi kum ba ca miimi kum gi miimi kum ja kama rawaane comme ko nettile man nga xam naqal tuxal ma ba ak juróom nag mooy salmal bi li assalamu aleykum ge ɓacca min ga amsak assalamu assalamu aleykum gooɗi ɓacca ɓacca mimi kum ja min ga hane mo nekk ca aleykum ja ba tey loolu farata la mooy fukkeelu juróom fukkeel fukkeel ak juróomi faratay julli kon bu ko defee loolu mooy fukki farata ak juróom yoo xam ne mooy faratay julli ci li nga xam ne moom la al imaamaawo fii tudd sëriñ tubaar itam indi ko ci téere bi والله تعالى أعلم سين بكم بلي سين بكم تايب السيخنا عليكم ورحمة الله وبركاته